salaamaaleykum mbokk internet yi ah, ñëwaat nañ ci seen émission bii di entre jeunes ah, fii ci Big TV te nag ñu dalaloon ci kii ñuy wax ah, monsieur Ciss nekk jeune entrepreneur di yëngatu ci wàllu média di PDG wu Big TV ñu dalal ko ko tey rek suñu émission wax ñu tuuti ci wàllu liggéeyam sëñ daaw da nañ la. waaw soxna Diarra maa ngi lay fay di am kontaan bu baax ci eh, invitation bi nga invité. ñoo la gën a kontaan mm-hmm. euh, sëñ Daouda li ma lay njëkkal laaj mooy yaa ngi yëngatu si wàllu média mm-hmm. euh, mu nekk loo xamante ni gis nañ ne de nos jours jeunes yi dañ ci impliqué wu torop mm-hmm. euh, di ci yëngatu ñu lay laaj rek yow lan moo tax nga porté ce choix ci loolu. ci média. waaw média nag yaakaar naa ne dafa am ndax nit ki di ko def. loolu dafa bari ay pàcc. li tax mu bari ay pàcc ndax. dafa am comme dafa jang hmm jang mo permet ko permettre mu dugg ci média. hmm am ño xamni dañu am don. média parce que média essentiel média mom moy yété essentiel bi d'abord lool la. Mhm. du lo am dang koy jang rek pour diko jang pour am diplôme bi. Mhm. mais euh solo bi deug deug moy informer askan bi li nga xamni ni loolu lañ wara xam d'abord. Mhm. man nek dama porte sama choix ci euh, média. Euh, bokkoon naa ci am ci dong benn ñaar mi moom mooy tamit jàng naa ko mm-hmm. fi ñu ko war a jàngee nag euh, ma des nit aussi dina jël mm-hmm. passion mu jàng ko di ko def avant ma ko def ñu bari na wax naan nitu média nga lii nga et tout et tout yàlla dogal tamit mu nekk tamit euh, sama passion donc mu ne sama métier aussi ma def ko d'accord mm-hmm. leer na su ma la dégg bu baax dafa nekk loo xamante ni ci yow la nekk. Mm-hmm. nga soog ko jàng wala boog danga ko jàng affaire yi fekk si la. waaw mun naa wax ne dafa nekkoon ci man bien avant ma di ko jàng. déjà avant ma koy jàng rek nekkoon naa koo xamee ni euh, ku bëggoon histoire laa ku bëggoon euh, comment dire ku bëggoon waxtaan laa. essentiellement dialogue par exemple. Mm-hmm. surtout ma aussi ci wàllum diine. Mm-hmm. loolu moo lay permettre nga am. benn euh, étude euh, bi la am culture générale mm-hmm. bien avant après la mm-hmm. la dem un jour pourquoi pas pour sama chance est-ce que ci ci la euh, ma formation d'accord nga ibi sa chaîne bi émissions mu yow <laughs> est-ce que yow xalaatoo woon dem par exemple si yeneen chaîne yi nga liggéey fa wala boog si si si yeneen que ça soit muy YouTube wala télévision yi nga déposé fa pour liggéey foofu. waaw xam nga laaj nga laaj bu am solo boo xam ni war nañ ko poser Sénégal si télévision yépp xam nga réew bu demee ba nit ñi limité wu e, nit ñëpp jël benn direction mooy benn nit mooy nekk chef d'entreprise. milliards yi personnes dem ci moom di liggéey. maanaam nit ñi duñu am sañ-sañu ber seen daaray bopp ngir mun a wane seen xam-xam ak seen talent yi ñu am. ba demee ci réewu tubaab yi ndax tubaab yi développé ma dafa bari ay secteur privé yu tubaab yi am yoo xam ne ku ne ci ndaw ñi fa nekk dañuy jéemal seen bopp lu mënal seen bopp. waaw du ñu sukkandiku rek ne diw am na télé xaama dem fa nekk un employé li ñu lay fay di yem ci yow kese. que yow am nga xam-xam bo xamne boko exploiter won exploité woon koy yaa des milliards de personnes mën ci jariñoo mm. man nak plaisir bobu la am motax nanguma dem ci kenn di fa dem di fa liggéey mën na ko ne may fay trois francs par mois ou quatre francs par mois mm-hmm. mu yem ci man mm-hmm. mais limo euh, choisir mom moy mm-hmm. sama xam-xam ma tek ko imposer ko ak nit ni bu don xam-xam mo melni comme nour wala comme kenen wala comme kenen dem sax ba réew leen yor ay emploi yo xamne suma propre xam-xam laa def ci ñoom ba booy liggéey ñu mën a jëriñ seen bopp loolu moo tax permettre ma dem ci benn média. d'accord su ma la déggee bu baax yow euh, mis à part jàng bi nga ko jàng ak don bi la si yàlla may da ko jël utiliser ko entreprendre ci ibbi si sa yëfu bopp képp ku ci mën a jariñoo rek mu ñëw jariñoo ci. waaw mhm. ah, loolu am na solo euh, beneen laaj bi ma lay laaj mooy est-ce que am na looy def à part média bi. waaw média nag. bu fekke dang ko jang fi ko fara a xam ñam e, di ko def ci firange media bi ci liggey bi mëno ko bolé ak lenen firange bi mu am parce que ko xam da ngay dem ñëpp ay nelaw mhm. ñepp nek seen activité yow ya tanon ne mhm. man taskadu xibar lay doon mhm. bu ñepp di nelaw dama yewu di wutu xibar bo hamne, def leen di jariñ ci kanam wala instant même biñ nekk xamuñu ko ma dinañ ko xamal wala démb dañ ko fàtte ma ko fàttali. lii moo tënk média kon yow. maanaam doo am temps daal doo am temps pour def leneen. ok parce que chaque jour l' information mu ngi ñëw. Mhm. chaque jour nit ñaa ngi judd. chaque jour àdduna mu ngi soppeeku te yow yaa war a yilif àdduna bi ci xamal leen li nga xam ne loolu lañ bëgg xam kon yow loolu mënoo ko boole ak leneen. d'accord fekkee nag média aussi euh, moom moo tax a jóg dëgg-dëgg. de comme lima ma la li may wax ci début bi dañu sétlu ne légui jeune yi dañ ci impliquer wu torop am mo waral lool da fay wala dafa am bok xaliss buñ ci gis <laughs> wala la motax jeune yi sobu ci torop dal waaw loolu nekk euh, question la bo xamné ne war nañ ko léral parce que dafa am média mhm. am youtubeur buñ mhm. ben xam nga youtubeur moy ko xamné ne dafa tan ben mbir

ngay togu añ di ko caméra di ko di wax ni lay toggee ceebu jinn lay toggee maafe posté ko sa sa benn boîte postale sur youtube mhm. nit ñi di ko ga di leen jariñ nga ci am dara lolu mo taxone chaîne yu mo taxone youtube plateforme mel noonu légui nag dafa am ci biir ay youtubeur am ño xam dañ ko def d'entreprise pour mën di ci liggéey mën jaar la ay xibaar def entreprise euh, bu mëna doon muy walu média bu mëna doon su ko defee nag man bi ma ci tànn mooy domaine boobu mooy def ko média di ci liggéey di ci avancé di ci jël ay nit di ci tàggat mm-hmm. ngir bu ëllëgee ñoom mm-hmm. ñu mën ci di ci jariñoo man nag du ma youtubeur man télévision sur youtube laa yor maanaam loo xam ne euh, dañ ma wax ne ma fii ngay jaar ak fii ak fii ak fii ma complété ko loola sur euh, Google AdSense bi ak Google YouTube ak pour ma mën a am monétisation pour def lu ni mel comprendre nga donc youtubeur nek mom xalé yi mu leen jël léegi feeñ ci sen bi na feeñ rek ngay def mais li ngay def yow amo ci ben kayit na feeñ la bëgg bëgg buzz la ñëpp gis la ci euh, ci ci youtube bi ñëpp xam la si wala euh moyen la pour ñu ut ci touti weccet dal waaw youtube nek na la ben affaire ci youtube junni nit yo gis ci youtube ñu ci feeñ fukk rek ñoo ci ok parce que youtube di ci fayeku dafa jafé li mu lay laaj moom YouTube ak contenu YouTube ñu ko am wala ñu ko mën bariwul am na ñoo xam ne ñu ngi feeñ ci YouTube di feeñ mais fa nuy feeñee kenn mën a tiisewu ko maanaam amuñ benn accord bu firndeel ne yow ak Google AdSense am ngeen lien ba tax moom loo def mu war la ko mën a fay parce que mm-hmm. fayee bi YouTube dafa xaw a jafe aussi mm-hmm. c'est pas facile kon mën nga dugal vidéo mu am ay millions de vues te doo ci am. mën nga am un milliard de vues te doo am dara. ah bon <laughs> parce que YouTube ñu ba dañ ko jubaarle ak WhatsApp. du WhatsApp. xam nga WhatsApp c'est gratuit da nga def statut léegi. Mhm. def ni ñëpp gis ko. YouTube pour nga fayé ko ci moom daf lay tégal ay conditions. Mm. ni la pour ma nangul la ni war nañ mëna waxtaan faw nga am 4000 heures de visionnage ci sa boîte ak 1000 d'abonnés. Mm. te do jël œuvre kenn du son wu jàmbur du image wu jàmbur dara jàmbur. Mhm. so paré lolu mu xol ko gis ni ah respecté nga lolu mu la léegi bayil YouTube. demal nga wut benn compte Google AdSense jaare ko posto nga jógee poste boobu nga doog a jaar banque nga jóg a jël banque nga doog a retourné waat moom sur YouTube pour mu war laa fay foofu mu validé waat yow yaay kan. xool ko ba gis ni war na laa mën a fay am na yeneen boo ko expliqué doo fi jógee parce que temps bi day day xaw a kii quoi mais maanaam. fi gàttal daal ñu ko leer na kii la processus la bu gudd quoi te te yombul. te yombul. d'accord nag yomb na. waaye lekk ci dërëm jafe na lekk ci leer na leer na <laughs> loolu defe naa ne leer na euh, léegi yow lu ma lay laajaat rek mooy euh, est-ce que youtubeur yooyu ngay wax. Hmm. di dugg si youtube bi poster ay vidéo et tout est-ce que ñoom amuñ dara lu ñuy yàq ci seen liggéey yéen yi ngeen xam ne te peut-être régulariser ngeen vis-à-vis de youtube quoi. Hmm. waaw youtube nag ni ko tubaab bi defaree kenn mënu koo yàq. duñ leen yàqal yéen seen liggéey dara duñ la yàqal dara. d'accord. parce que kii jëmbat ñebbe toolam di ko bay mhm. kii jëmbat toolam ñebbe di ko bay ngeen bay yéen ñaar ba ñoral mhm. witt teg kii ñëw baan baane war a jënd mhm. day xool ci yéen ñaar ban ñebbe moo ci am kayit mu doog ko jënd doo ko fay ñebbe ji amul kayit du ko sax xool ba di ko waxaale ba di ko fay <laughs> comprendre nga bu baax

d'accord junniy cantine chaque personne bu ne lii bën nga dugg ci marché bi xool cantine bala neex nga jënd fa. d'accord léegi nag ñoom ñu nekk ci xale yi nekk ci YouTube bi di poster ay video et tout et tout et tout. Mm-hmm. kii seetaan moom. moom moom li ko seetaan li ko neex lay seetaan. boo gisee ëttu tooxee doona mu amal ko jariñ mu abonné ci chaîne bi di ko seetaan. bu gisee keneen koo xam ne leneen leer def loo xam ne intéressé ko mm-hmm. du ko seetaan du ko sax xool. man mii ay at maa ngi ciy liggéey am na mbir yu ci xew yoo xam ne yaa ma koy wax wala kenn moo ma koy nettali mm. parce que tallu ma ko intéressé ma duma ko xool donc noonu la mel quoi d'accord euh, question bi ma lay laajaat mooy euh, si seen régularisation comme ni nga ma expliqué sànq yéen ak yéen ak YouTube mm. da ngeen di régulariser am ay papiers yu leer pour ngeen am si dara léegi est-ce que état bi foofu tamit du leen laaj benn régularisation vis-à-vis de l'état quoi laa bëgg a wax. waaw yaakaar naa ne ñun état lim ñu war a laaj jaarale na ko ci YouTube. d'accord nga réew mi dañ ko organiser ba nga xam ne amoo droit rek installé fi dara. Mm-hmm. li nga fi war a installé nekk. Mm-hmm. moo la permettre ñun nga war a mën a liggéey ak ñun parce que wax naa la léegi ne YouTube. Mm-hmm. moo ko WhatsApp ñoo bokk yem. mais so ci bëggé liggéey nek di ci am dara foofu nekk mooy coow lii fofu moy problème bi mhm. youtube yow mën nga ko am mais ndax yow di nga am chaîne youtube di ci fayéku say droit loolu mo compliqué fofu la coow li nekk ñu bari da ngay ñu bari na la amna compte chaîne youtube compte bo xamné mëno ci def 4000 heures de visionnage te youtube pour mu fayé la sa premier paiement faut que dépasse 70 dollars. Du fait ay 50 dollars, ay 20 dollars. Continue bien. Faut premier paiement mo ag 70 dollars. C'est premier paiement exemple. D'accord. Donc après il faut continue. Te YouTube de fait vie. Ni pas de nan nombre de vie lay fay des dettes. YouTube dépasse na fofu. Mm. Un de business la YouTube de fait. maanaam vidéo bu dep boo xam ne dafa dafa dépassé 4 minutes yoo xam ne yow danga nga toog di saan ëttu doxi doona ba mu dépassé 4 minutes. d'accord mais bës nii rek dem bës nii rek dem defaa nga benn vidéo am 100000 vues hmm. doo am xaalis. am vidéo boo xam ne voilà maanaam 100000 vues yëpp amul kenn ko xool vidéo bi du dépassé 4 minutes dañ bés rek des nag bés bés dem am vidéo boo xam ne amul 100000 vues mais 5000 vues rek la am mais moo ëpp xaalis bi hmm. parce que bii vidéo bu 10 minutes la boo xam ne.

parce que vidéo bi dafa intéressant ba gars yi dañ koy seetaan di ko seetaan naa di ko partagé di ko aimé di ko like aussi tamit mu ci biir vidéo def ay publicité d'accord donc YouTube ci biir YouTube dafa am beneen lesson boo ci ci war a jàngale waat. d' accord leer na yaakaar naa ni ñi youtubeurs yi bu ñu ko déggee. <laughs> Oh, dina jëlaat seen i. matuwaay ah, dernière question bi ma lay laaj rek mooy euh, est ce que di ngeen am ay difficulté parfois si vidéo yi ngeen di posté ak yéen ak YouTube di ngeen ci am ay xëccoo parfois ngeen dugal vidéo Mon ne la dindil vidéo bi wala genre. waaw des fois dañ ci am ay problème mais YouTube du togn kenn. d'accord gis nga tubaab bi ni mu organiser internet. Mhm. YouTube du tooñ mhm. kenn. Mhm. pour nga xam ni tubaab du nit du nit ku ñuul exemple <laughs> pardon ci wax bi quoi. Ah. man tubaab dafa organiser wu bien avant ngay ñëw ci mom parce que bo ñëw ci mom daan la eh yaa nga ñëw ci man kat mais critères yi la bëgg yi la bañ. Mhm. même bëgg dugal vidéo boo xam dafa ànd ak pornographie wala dara daan la vidéo bi ngay dugal nii lay jox ay âge ne la vidéo bi ci ban ci ban euh, euh, euh, tranche d'âge ñoo nga koy dugal mhm. ndax am nga licence boobu ndax am nga loolu soo ko dugalee ci yenn kii da koy da koy rejeté en ah la non oh. vidéo bi vidéo pornographie la amoo droit dugal ko parce que ah. wax nañ la ci loi bi ne la ni waroo ko dugal nga bañ ci loolu ci biir YouTube da lay envoyé message email sanctionné lay attention. mais par parfois nga gis comme genre le motif bi fi amoon dañ ko visualiser woon si YouTube ba nit ñi di ko jot am nañu ko jot a waaw xam nga YouTube dafa am benn benn temps boo xam ni soo posté vidéo nii mhm. boo koy dugal rek da koy xool su ko xoolee moom automatiquement rek. da envoyé message. ne la vidéo bi eh, ko nga registré bañ. moom YouTube ci boppam mu dindil boppam vidéo bi am na ñoo xam nañ ko dugal nii nag fët balaa YouTube réagir nga gis am ñeneen ñu ko enregistré capturé ko et tout et mais YouTube li tax mu wute ak ay WhatsApp ak yooyu moom YouTube daana moom euh, da ko organiser ba nga xam ne loolu neex loolu neex dugal daa defaa gis loo xam ne Facebook la am mais amul YouTube d'accord parce que YouTube moom dafa organiser ba nga xam ni mm. amoo droit dugal fa lépp